gisee ci réew mi depuis le 2 mars président de la république daf ci jël ay mesures yu am solo benn bi bu njëkk bi moo doon mu proclamer état d'urgence wax ne également nañ def couvre-feu maanaam tere génn beeg doxantu bi bu vingt heures jotee ba six heures du matin man en tant que ministre de l'intérieur yeneen mesure yëpp man maa ko doon jël pour fexe ba loolu président bëgg muy rythme progression maladie bi bu mu gaaw bu fekkente ne mënuñu ko arrêté loolu moo taxoon ñu tere woon lépp lu jëm ci manifestation wala rassemblement tere woon également ñuy jaay ci débit de boisson yi ci marché yi ci terrain de sport yi ci euh, lieu de culture maanaam fépp fi nga xam ne fii nit ñi dañ fa daan nekk di dajale di jaamu yàlla obligation également di takk masque bokkoon aussi ci mesure yi ñu jëloon suma collègue ministre des transport jëloon également ay mesures yu jëm ci transport bi bi nga xamee ni bi assemblée national jox na président benn loi d'habilitation maanaam mu jox ko possibilité mu jël ay ordonnance président defoon na prorogation état d'urgence bi le 3 avril le 3 mai ak le 29 mai mooy bi ci mujj bi nga xamee ne bii président wax na ak askan wi la 11 mai mu jëloon ay mesures pour ñu euh, oyofal restriction yi nga xam ne yi defoon nañ ko ci bu ci njëkkoon moo doon mu ne nañ jël couvre-feu bi décalé ko ci ñaari waxtu yéegal ko 21 heures wàcce ko 6 5 heures du matin ñu ubbiwaat marché yi pour juróom benn fan ci semaine bi mu ne woon aussi permettre na luuma yi ñu reprendre ko également bërëb yi nit ñi daan daje pour def seen di jaamu ñu pré ñu pré ñu ubbiwaat ko waaye respecter également mesures yi nga xam ne yi moom la war a ànd ak fonctionnement restaurant yi également mu ne woon nañ ci commencé déjà réfléchir waaye ñu respecter mesures barrières yi transport bi nga xam ne bi également mooy dem bi ak dikk bi euh, ñu xalaat ci déjà pour travailleurs yi nga xam ne dañuy dem ci àll bi pour préparer nawet bi décision yooyu nag président jëloon am na solo lool boobu ba léegi nag ñu ngi ciy xalaat di ci waxtaan ak acteurs yi moo tax bés ni ki tey danañ jël décision pour yombalal dem bi ak dikk bi maanaam tere biñ ci daan def ci réew mi yëpp danañ ko bàyyi nit ñi danañ mën a dem danañ mën a dikk waaye danañ yëkkati aussi cour feu bi léegi au lieu muy tàmbali vingt et une maanaam onze heures ci guddi lay tàmbali ba cinq heures du matin gare routière yi danañu reprendre pour transport urbain ak transport interurbain waaye gannaaw couvre-feu bi am na ba léegi am na waxtu boo xam ne bii ministre des transport dana ci waxtaan ak gare routière yi pour que surtout interurbain yi pour que ñu mën a tëj gare routière yi. réunion yi nga xam ne aussi tere woon nañ ko ci endroit public yi ak privé danañ ko reprendre restaurant yi également danañ reprendre euh, salle de sport yi aussi danañ permettre ci salle de sport yi nit ñi di def danañ am mesure d'assouplissement yi waaye danañ respecter également distanciation yi ak mesure d'hygiène yi gouvernement bi comme ni mu ko dalee def boobu ba néeg ni mi ngi continuer di déglu population yi pour fexe ba relance économie bi nga xam ne président wax na ko ñu dund ak virus bi te euh, euh, jël suñu matuwaay ñu continuer ci waaye nag euh, loolu lépp dafa li muy ànd mooy port de masque bi nga xam ne bii moom alaakulli àll mënut a ñàkk ci bërëb yi nga xam ne nit ñi dañu fay daje euh, ci transport yi distanciation bi nga xam ne bii également maanaam soriante bi ñuy digal nit ñi loolu aussi ba léegi mi ngi fi te it dañ yokk lenn bëgg nañ transport yi nga xam ne danañ koy reprendre rawatina transport interurbain bi oto bu ciy dugg bu ne ñu ñu booy départ ci gare routière def li ñuy wax manifeste manifeste mooy këyit bi wane ñi dugg ci oto bi euh, seeni contact ak fan la ñu dem loolu dana mën a permettre bu liggéey bu fekkente ne dara xew ni ñu mën a topp ñi nga xam ne ñooñu àndoon ci ci voyage boobule. gouvernement bi nag mi ngi mi ngi regretté li nga xam ne lii xew na ci ñaari fan yu mujj yi euh, muy manifestation yi nga xam ne yi euh, ay ndaw ñu ngi koy manifester pour euh, ñu lever couvre-feu bi loolu nag malheureusement tax na ñu jàpp ci ñu xaw a lim bu xaw a takku ci bi ci biir Sénégal. Euh, donc loolu vraiment loo xam ne li naqar nañ ko parce que askan war nañu xam ne lépp li nga xam ne li jël nañ ko ci ci mesure pour seen kaaraange dong la maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf euh,